Amis internautes bu Sénégal 7 bienvenue dans la grande interview euh, d'aujourd'hui tey nag euh, maa ngi recevoir euh, sur le plateau monsieur Moustapha Diakhaté moom fi nekkoon ancien ministre ancien député et aussi ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar salaamaaleykum Moustapha Diakhaté. bismilaahi rahmaani rahiim waaleykum salaam wa rahmatulaahi taala wa barakaatu soxna Ndiaye maa ngi lay nuyu bu baax. di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci euh, euh, euh, sit bi di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi nuy seetaan muy suñu mbokki sénégalais yi te ñaan yàlla subhanahu wa mu baaxe nu ba li liñ fiy wax amal njariñ réew mi Euh, Moustapha euh, dernier casquette bi nga amoon mooy euh, ancien ministre euh, auprès du cabinet bu président Macky Sall ñu seetlu ne du 28 octobre bi ñu génn ci atum 2019 mu mel ni comme séparation dafa am ci diggante yow ak njiitum réew mi lan moo waral boobule séparation. waaw séparation du ma ko ko tuddee li ma koy jàppe mooy président Macky Sall moom dafa ma dénkoonub liggéey. jaarale ko ci décret euh, dem na ba jàpp ne xëy na euh, ni may doxale gënalu ko mu nangu li ma dénkoon kon loolu man duma def lu dut euh, bég ci ndax ci d'abord dénkoon na ma nangu gi itam du loo xam ne naqari na ma d'abord ndax moom moo ma dénkoon nangu gi te nit ki bu la dénkee dara nangu ko wóor laa xari waaye bu fekkonte ne day dama doon doxal sama xel rek xëy na keroog keroog bi mu prêté serment laay noppee takk ndooma tànk guy jóge ci moom ndax loolu laa naroon waaye nag bi ma ci waxtaanee ak samay kilifa euh, ñu ne ma daal mu fal précisément nga xëy démissionné loolu moom du du leer ci xelum nit ñi li gën mooy nga bàyyi ko rek lu mu def baax na ah yàlla dogal na moom ci boppam dem na ba xëy na kàddu yi may yëkkati gënalu ko euh, mu dindi li mu ma dénkoon loolu man maa ko ci sant bu baax di ko ñaanal euh, maanaam fi mu jëm aussi gën fi mu jógee bi ci des nag mooy sunu ànd ginnaaw ay ndomb tànk lalu ko woon. ndax man 2009 bi may jógee parti démocratie sénégalais dama delloo Abdoulaye Wade ndomba tànk yi ma joxoon ak teraangaam ñëw fekk si ko muy sama rak am lu mu doon wut ma ànd ak moom ma fekk si ko kon ndomba tànk wut si wut si ma ko woon. dama ñëwoon moom ngir ànd ak moom ndax président Abdoulaye Wade bañ a ndax bañ a jox doom doomam réew mi damay ànd ak moom ndax damaa jàpp ne ñi doon laaj réew mi moo ci gënoon a taxaw pour jaarale pour développer Sénégal loola nag dara soppiku ci maanaam cofeel gi ma am ci moom en tant que nit. ak yéene gu ma ko yéene ndam ci liggéey bi ko Sénégal yi dënk loolu dara ko ci kon ci wetam moom li ma dénkoon jël na ko waaye man nag li ma ko joxoon moom du mënuma ko jëlaat muy cofeel ak jàppale mu nekk sama camarade du parti mu nekk sama leader du parti aussi. waaw sa euh, limogeage boobu mun nañu wax ne gannaaw ba nga defee émission ci grand jury du dimanche euh, waxee waxoon ci wàllum troisième mandat bu Macky sàll moo ko sooke est-ce que nekkul tamit euh, troisième mandat boobu da nga bokk ci victime yi. waaw xëy na mën naa nekk ndax wala def ne te tombé waral ay gaaf effectivement def naa benn émission yëkkati fay kàddu ne président de la République mënatul am ñetti mandat loolu itam bu ma ko waxee ma tër ko ci ñeenti yëf bu njëkk bi mooy bi mu falu 2012 dafa fekk constitution bi ñu limité mandat yi ne mënut a weesu ñaar 2000 ndax loolu Abdoulaye Wade moo ko dugaloon ci constitution bi mm-hmm. moom bi mu faloo mu gën a dëgëral wax jooju dugal ci biir ne kenn benn président Sénégal mënut am lu ñaari mandat yu moom ci boppam bi ñu ko falaatee ba noppi mu yëkkati kàddu ne mandat bi ñu ko falaat nii mooy bu mu jëm te dégguma moom moom mu wax ne dina bëggaat na troisième mandat man loolu laa répété ah mu ci ëllëg sañu mu jëlee mu fa fekk na lu ko jiitu am na keneen ku waxoon loolu mu mu mu jëlee ko fa. kon ma des naa ñaaw njort ci ne xëy na loolu moo tax ah, bu fekkee loolu moo tax mm, jàpp naa ne du yoon wu moo jub parce que moom mooy kilifa kilifa parti bi moom mooy kilifa coalition bi. su fekkee bëgg na ñi nekk ci coalition bi am nañu mel loolu moo leen ko war a digal parce que dama jàpp ni nit bu jiitee ay nit yaar yi daf koo war ci ñoom mooy benn mu di leen digal lu baax di leen tere lu bon kon ma jàpp ne li ko li waroon mooy mu dajale responsable yi ci parti bi wala coalition bi ne damaa bëgg mbirum troisième mandat ñun buñ ci duggati su boobaa nit ñi dañ ko dañ ko bàyyi waaye jàpp naa ne waru koo faje ab décret parce que loolu dafay day niru leneen ndax décret moom Sénégal yi ñoo ko dénk te jàpp naa ne merum parti Macky Sall waru koo faje décret boo xam ne Sénégal yi ñoo ko bokk ndax loolu boobaa day dindi wax ji waxal waxal boppam mooy la ñun dañoo jiital la patrie awal parti su fekkee day jël yëfu parti bi di ko faje merum parti loolu jàpp naa ne gënul encore une fois defuma ko problème parce que su fekkente ne moom day bañ ku wax troisième mandat ndax daa ndax pour moom bëggatu ko wut amul benn problème mais li ci lëndëm mooy am na ñu bokk ci kër gi bokk ci langue politique bi bokk ci parti wala ci coalition di wax ne moom mën naa am troisième mandat te kenn defu leen dara kon day mel ne li ñuy bañ du du bañatuñ ko wax ci troisième mandat li ñuy bañ mooy ku ne Macky Sall mënu ko am te jàpp naa ne loolu du ab cëram du taxawaayam parce que man euh, gàcce Macky Sall sama gàcce rek la mën a doon ndamam sama ndam rek la mën a doon te koo xam ne bu daanoo nga xalanku li nga ko war a yéene mooy mu taxaw malheureusement euh, ci wàllu troisième mandat bi limogeage boobu mu def sori kaba ak teg ma ci tax na xelum sénégalais ñu ngi commencé jaxasoo ci ne ndax Macky Sall bëgg ko te loolu jàpp naa ne le fait que nit ñi di ko xalaat rek baaxut ci moom baaxut ci république du Sénégal. waaw euh, monsieur le ministre yow nga xam ne yàgg nga di fréquenter ak kii di président Macky Sall euh, est-ce que yaakaar nga ni Macky Sall bu taxawaatee bëgg troisième mandat dina nekk mbir moo xam ne dina la bett ndaxte wax na fi wax waxet na. Ah, ok dina ma bett parce que euh, su ma léeg-léeg ñu tuumaal Macky Sall naan dafa ndax daf ne woon mandat am daf koy wàññi cinq cinq cinq ans. te ko. pour man euh, foofu président am na wu lay wu dëgër ndax bi mu bëggee wàññi mandaam dafa laaj conseil constitutionnel ne leen ndax man naa wàññi sama mandat bi conseil constitutionnel nekku ko mënoo koo wàññi li nga man xay na man ngaa dem waaye mënoo wàññi ma jàpp ma jàpp ne ginnaaw président de la République ginnaaw conseil constitutionnel moom la ñu dénk conseil constitution bi lu président de la République bëgg a def ñu ne ko constitution mayu la ko jàpp naa ne li président war def mooy def li ko conseil euh, sant kon man jàpp naa ne wax jooju du woon waxeet maintenant li jëm ci bëggaat troisième mandat man de li may ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla bu mu ko bëgg yàlla bu mu ko gént bëgg yàlla bu ko kenn bëggal ndax bëgg ko baaxut ci deram baaxul ci seen Sénégal te mën naa indi ay jafe-jafe parce que bu nu ko fàttee 2011 fukki nit ak ñett faatu nañ ci bañ Abdoulaye Wade amoon troisième mandat te ñoo ñoo doon faatu ci suñ côté lañ bokkoon jàpp naa ne par le respect de leur mémoire kenn ci ñun warut di wax waxu président Macky Sall war naa bëgg troisième na te li am solo nag gis nga muy président la République muy journaliste bi muy béykat bi nit ki ci dundam na def rek li mu war a def su lañ ko sas jeexee mu defee leneen parce que nag amul kenn ko xam ne ci noonu am indispensable nga ba ba fi nekkul réew mi du dox kon encore une fois daal li may ñaan mooy yàlla bu mu ko bëgg yàlla bu mu ko gént bëgg yàlla bu ko kenn bëgg le ndax loolu mooy sagam te mooy moo moo gën ci moom. waaw euh, monsieur le ministre euh, si say ay kàddu dañoo nemmeeku euh, nemmeeku ne da nga am benn certaine liberté de ton liberté d'expression mun nañu wax ne doy na ngoo wu si au niveau kii bi nga nekk instance bi mu nekk benn affaire boo xam ne mun nañu jàpp ne ça peut déranger les membres de ton parti est-ce que nekku tamit loolu moo gën a susciter à ce que mu teggi la sa norme est-ce que nekku yow yaa ko poussé la à la sortie waaw loolu mën na nekk waaye du du ma ne ba ñu ma ci lii ñu parti bi c'est ci wàllu troisième mandat léeg-léeg ma dégg nit ñi naan man dama safaanoog parti bi déedéet amul bind wala film wala wax joo xam ne alliance pour la république wala benn bokk yaakaar daf ne bu kenn waxati ci troisième mandat kon amuñu ligne buñ ci am wax amuñu ci ligne ginnaaw amuñu ci ligne na kenn ku ne sañ nga caa waxee ni ni nga xam ne mooy mooy mooy liberté tey nag xëy na après bi mu dàqee su euh, kii. Euh, Sori Kaba Sori Kaba ak man. xay na mën nañoo jàpp ne lii ñu parti bi mooy euh, maanaam bu kenn waxati ci troisième mandat am te kon nag jàpp naa ne c'est vrai président du parti am na baat ci parti bi waaye lii ñu parti moom instance moo ko war a moo ko war a réglé te ba suñu jën yàlla tey jii amul benn kuréelu APR bu daje ne ba ñu waxati ci troisième mandat kon ba ñu maa rangé ci lii ñu parti bi waaye parti bi daa amul ligne ci mbirum troisième mandat loolu mooy benn bi bi ci des itam. Euh, parti politique du caserne démocratie la euh, nit ñi ci bokk ab war nañu am sañ-sañu wax seen xalaat dégg naa fan yi président ne euh, ku mënul def d'accord ak man na nga dem man jàpp naa ne ay nawle kenn du ànd ak ñoom noonu ay nawle kenn du leen ne da ngeen naan muut wala ngeen di mott am na lu mu ci teg ne ku def ku ku d'accord ak man da ngaa def ni ma defoon foofu defe naa njuumte am na ci parce que président de la République ay divergence politique tàggaliwu ko Ablaye Wade Abdoulaye Wade daan nangu li mu ko joxoon mu door ko bàyyi. Mm-hmm. kon encore une fois li ma jàpp rek mooy démocratie la ñu nekk su fekkente ne am na lu ñu bëgg nit ñi doxale ko nañ ko waxtaane ba ñëpp d'accord ci te man keroog bi mu dàqee Sori euh, Kaba position bi ma ko mooy wa wala responsable parti bi ne leen bu ñu waxati nit ki su fekkee da ngay jiite nit ñi soo euh, da nga leen war a wax di leen digal lu baax di leen tere lu bon waaye nag bu fekkente ne da ngaa bëgg seetaan bëgg nit ñi di gën di xool li ci seen xel di ko wax. loolu moom day day compliqué trop trop trop trop bon naa nag li ci des mooy man euh, sama vrai moi dama am sama liberté de temps jàpp lu may bu may wax dara du ma ci jéem a fay bor du ma ci jéem wut njël damay seet ba xam ndax li may wax dëgg la wala du dëgg damay seet ba xam ndax li may wax amal na njëriñ réew mi wala amul njëriñ saa su ma xasee jàpp ne dëgg la rek saa su ma xasee jàpp ne lii amal na njëriñ réew mi dama koy wax du ci seet lu ci naqari nit du ko neex na